vieux bibi boolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ko bëgg ay mbokkam alors bon avant tout ma ngi remercier tay ñi fi teew ñëp waay déglu leen waay may leen ñu loolu waxon nako di remercier aussi tay ji ñi nga xamante ñom ñoo organiser événement bi am tout le retard ci tambalé bi dañ leen ci bu baax pour traiter un sujet bu sérieux parce que une décision sérieuse doit se prendre le 31 octobre dans quelques jours ñu génnoon nag si at bi ñu génn yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ni je suis le seul candidat déclaré dégg naa si après yeneen candidature ya nga xamante ni ñëw na ci ñu bëggoon def ay précision de taille parce que tout bonnement dégg nañ nit ñu bëri ne lu dul élection amuñu droit nekk ci candidat yaakaar naa ni dañoo comprendre exactement enjeu yi nga xamante ni tey moo ëmb làmb ji ndax monsieur le ministre matarba. moom moo en 2018 ne Alioune Sarr ne si nu ñu mën a 2020 fédération Bam koy wax waxloowu ma ko monde lamb ñoko waxlo mu jël engagement ñu bind ko ci cahier de charge jox len ko suñu démé nak ba mandat 2 ans bi ñu waxoon ne ngi waja jeex ñuy bëgg dem ci ay renouvellement ñu xey subotel gis un ba Kanté

crise bi làmb ji di jaar tout récemment ñu gis trois phases yi CNG jaar muy la phase des services la phase des privilèges et la phase des abus bi nga xamanteni mom moom nañ avec nos frères yi nga xamanteni ni ñoo ngi ci bir salle bi muy les arbitres ñu bëgg ñaan tay président de la république ne ko monde lamb ségam garage yi nga xamante ni chauffeur yi fay nekk motuñu cinquante personnes dañuy dajaloo foote fal président làmb ji nga xamante ni bi ñu mujjee wax ñoom presque 4000 mille licenciés nañ wax te amateur ñëwul manager ñëwul kon dañuy ñaan ñu organiser ñu des élections pour ñu mën a fal un président par la démocratie ñu jógewaat ci loolu aussi di interpeller l'État di ko wax ni làmb yamut ci bëre dóor làmb dafa am lutte simple am lutte olympique su ñu jàppee ne tey lutte simple balaa ngay mën a bëre da ngay joxe mille francs te pourtant su saison bi di ibbi da ngay ñëw jënd sa licence à mille francs ñu jógeeti noonu. soo cotisé ba pare soo daanoo dem ñibbi te doo fa jëlee dara ñuy wax encore une fois comité bi fi nekk wala biy ñëw dañ jàppale les jeunes lutteurs ñu teggil leen loolu ñu ñëw ci wàllu lit olympique démb maa ngi suivre le ministre des sports moo ngi leeral ne docteur Alioune Sarr li tax ñu teg ko fi moo ngi koy def loolu gis-gisam la c'est son avis parmi tant d'autres je pense que la lutte olympique Quel est a dégg Sénégal Si nous ji ñu une compétition en lutte olympique De développer la lutte sur toutes ces formes la ñu wax ci cahier de charge CNG Nous avons encore ci ma candidature Nous avons ni que c'est légal li def c'est une candidature proactive Amna droit tey muy CNG muy fa nga xamante poste nomination la wala emploi bu ñuy Amna droit nek fa candidat loolu tey ñoom suñu ci ay texte dinañ ko gis la ñuy une candidature proactive li ci damay confirmer waat samay diir di ko leeralaat encore ci kanamu nit je suis candidat à la succession de Alioune Sar. ñiy wax ministre Matar Ba Keba daf ko bañ a seeti bañuma koo seeti moom moo sport muy football muy làmb muy judo ak lu mën ci action wu dem bañuñu ko mais dafa am si lu jaar ndax ku yilif mom moy xol tay li nga xamanteni moy yoon mu di ko teg di ko wax nit ñi ndax demb suivre nako mune lepp lu xew ci lamb xam na ko su gisee nak ay nit ya nga xamanteni ni ñoo ngi intervenir ci lamb di ci wax am sañ-sañu taxaw def une candidature war na leena a wo parce que ma candidature elle est spontanée voici le terme su non ak cellule de communication am dinañ ne ko. Kéba lii mu def si yoon la ko teg parce que candidature spontanée lu exister la su boobaa su ma woowee en tant que ministre pour ma ñëw wax ak moom ci wàllu làmb dinaa ko wuyu mais encore une fois ma bamtuwaat samay wax yi ma doon wax CNG du lu may négocier du lu may waxtaane parce que wutuma ministre bi mu kontaan wutuma promoteur bi mu kontaan li ma bëgg mooy làmb kontaan moo tax nag du ñu wax a wax a wax a ba ñëw fii ba démocratie am si làmb ji nañ ma ko sante ndax avant man kan moo fi taxawoon di ne mën de remplacer Alioune Sarr vingt six ans kenn mosu koo dégg alors ma génn commencé débat yi commencé si wax ba ay décision yu waaj génn Nous bëgg que ne non amul droit d'être candidat mais au nom de quoi su dee nous lu ci que ma confiance bi compétence bi que connaissance bi xool circonstance bi. mu dit la nga xamante dit que nous mais kon man waruma di leen wuti ñom ñoma wara war si fulla waxuma ak Matar Ba ministre wah, sports lay wax dama bëgg mu leer parce que tey ni mu fi nekkee mën na fay jóge suba moromam ñëw fi fi ñëw fekk fi su fi aussi man nit ñi dañoo ñëw fekk ma ci du sam papa moo jàpp sama loxo yóbbu ma ci làmb du góor géwal mi du yéen ñii jàkkaarloog man ba ñëw ci amour ak pas-pas ak bëgg-bëgg moo si yóbbu te loolu ma fa moo ma fa bàyyi te si laay continuer di nekk dama bëgg nag sénégalais yi laay waxal nekkatuñu si situation ba nga xamante ni dañuy jël li nga xamante ni ñun ñoo ko moomal suñu bopp muy suñu cosaan di ko fooyee di ko caaxaane suñu waxantee dëgg làmb ji ku ne nekkul ci crise da ngay wax lu la neex ndax foo dégg mille et quelques licenciés ñi siy fayeeku 10 millions matuñu 15 personnes mbër yi di jóge fii di dem ba ay àll di bëre di daanu di ñibbi ay loxo yi neen seen kër ndax ay cotisation arbitre di taxaw di laaj des meilleures conditions ñu leen di raje te pourtant su ñuy wax ci wàllu discipline parce que maa ngi dégg ñu ne non ñoom li ñu waroon a def defuñu ko lañu waroon a bind mais ku déglu débat wu arbitre yi ne ñaata yoon nañu bind.

ñu jëlaat ko jox ko àqam ndax état Sénégal su indi arène nationale warna naa mën indi centre ya nga xamante ni nit ñi dañ ci mën entraîner ñu am ay tapis comme niñ ko bëggee mais ban athlète nga dégg ne tey moo ngi ci club amul ndax goos yi soo leen formé wul soo leen formé wul pour ñu dem à l'extérieur di compétir Ya naa ni kon Sénégal jarut muy wut lutte olympique drapeau CEDEAO bi ñuy organiser fii tey benn boobu sa la yam lutte simple da ngay gis comme li ma wax bu ba dem bëre ji cotiser 1000 francs ñu daan ko muy ñaan reer wala paas bu mu ñibbee mais loolu daf fi war a jóg maa ngi interpeller sama xaritu promoteur yi xam ni aussi suñ ko déggee dinañ leen dinañ ma xaw me mais dama jàpp ne même su fekkee nombre bi day yokk ndax quand on parle de lutte simple on parle de 60 ou 80 athlètes qui compétissent. compétir quand on parle de lutte avec frappe on parle de 20 athlètes 10 combats. kon donc jàpp me ni war nañoo mën trouver ñoom solution ba nga xamante ni au lieu mi su pour bëree ñoom ñu mbeur mi su ñëwé inscrire nuñ koy joxé dara pour mu def ci poche ndax lutteur lutte avec frappe bu ñëmé joggé kërëm di dem stade té xamut né reliquat ci yi encore une fois équipe nationale bi Sénégal di génn représenter le Sénégal nañ leen mettre dans de très bonnes conditions loolu ministre des sports laa ko wax parce que tey moom fu muy taxawee di défendre budget pour football di défendre budget pour leneen war na mën a défendre budget wu suñu sport national bi nga xamante ni jéggaane wuñu ko fenn loolu kenn du ko tere te yaakaar naa ni sénégalais yi duñ ko ci mere ñu terminer aussi tey si problème mu arène nationale c'est bien beau niñ ko defaree rafet na don la du don loolu sama domaine mais li ma ci amal solo mooy sécurité arène national nañ ko renforcer parce que su fekkee ne dañu ne dañ ko defar spécialement pour mbër yi mën faa bëre normalement am na yenn sanction ya nga xamante ni ñoo ngi ko doon utiliser Demba Diop war nañ koo suspendre biir arène national le pourquoi bouteille dix litres yi ñu doon wax wala indi fourneau wala indi leneen lan moo taxoon ñu koy tere parce que foofu gazon synthétique la woon mais arène nationale nañ ko defaree su fanaane woon taw ba suba sax ndox mi dem asamalaat ñu indi bouteille dix litres kon foofu jàpp naa ni waratuñ faa dagg kenn bouteille dix litres ñu jël en compte aussi fi mu nekkee ndax du mbër yëpp dëkk Pikine du mbër yëpp dëkk Géejawaay am na ñuy jóge Faas am ñuy jóge Colobane am ñuy jóge yeneen gox

may terminer encore ci problème mu entraîneur yi ndax CNG tey maa ngi gis sama xarit Matar Ndiaye manager moo ngi fi mais CNG ni mu def ba protéger tey les managers na def noonu ba protéger les entraîneurs ndax tey ñoom ñoom ñooy suivre gos yi di leen entraîner di ànd ak ñoom di yeewu 5 heures du matin te koo ci gis su entraîner ba pare moo ngi ñaan paas bu mu ñibbee CNG na leen protéger. 10 pour cent yooyu di jëm si ñoom manag ñoom manager yi ñoom Matar Ndiaye nañ ci jéem a xool nuñ koy jëlee 5 pour cent di ko jox entraîneurs yi ñu protéger leen nii ñu protéger manager yi ñu protéger leen nii ñu protéger promoteurs yi ñu protéger leen aussi nii ñu protéger mbër mi nga xamante ni dugg na ci biir géew encore une fois làmb suñu bëggee mu développer dafa laaj toog waxtaan du ay xiiroo du ay ŋaayoo du ay président Alioune Sarr du ay njàmbee du ay keneen problème bi problème structure bu jiite làmb la démocratie fu mu amul jàmm du fa am jaay doole bi ñuy jaay doole mbër yi soo gisee tey ma interdire mbër yépp ne bu kenn ñëw ci point de presse bi parce que xam naa ni ku ñu fi séen su fekkee ne ñoom ñoo fi toogaat soit ñu woo la menacé la wala ñu adressé la lettre wala nga ñëw ci làmb ñu sanctionné la loolu doxalul sport il faut que sa arrête président Alim Sar nek na fi def na fi vingt six ans vingt six ans yi doxal na num ko nexé nañ jël affaire yi ñu teg ko ñu waxtaane ko trouver consensus man bañuma tay bañuma tay nous ñu wo président école de lutte wo association yi nga xamante tay ñom ñoo ŋànk ji ne président Alim Sar, sëgam day dem parce que loolu wóorul ndax suñ ko reconduire aussi état moo ko fi teg lu dul suba teel sañ se dem seetaani làmb mënuñu si leneen wala taxaw di wax suñ koy reconduire ñu reconduire ko avec des conditions mu ñëw installer démocratie si biir làmb xam ne sanction du jàpp nit ki rek dagg xaalisam xam sanction du arbitre yi dem grève rek dañ leen di radier ñu ànd ak yow à peu près vingt ans yaakaar naa ni ministre bi su ne moom mënu see intervenir waroon naa xam loolu premier jour bi ba bañ leen a woo naan leen bu leen dem leen arbitrer parce que moom moo ko wax moom moo génn ne woote na leen waxtaan su xamee ne waxtaan bi da koy commencé te du ko eggali kay kon jarul woon muy woote ndax je pense que ni moom moo jiite waa CNG waa CNG jiite wuñu ko ah bo si li ma yaakaar kon su problème amee si njabootam na leen woo àtte dëgg. ndax CNG rajo bi ñu jël rajo ko arbitre yi d' accord ma ci tey d' accord ma ci ëllëg loolu dama bëgg mu leer kii ñëw aussi mën na am sax mu nekk euh, Alioune Sarr à la place de Alioune Sarr mën nañ ci citer ay nom mën na nekk le professeur Babacar Diouf ñoo ngi avancé turam mën na nekk ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mën na nekk sax buur géwél parce que buur su ma ni ma ko gisee mu koy ni may xoolee nii xam naa ni copain Alioune Sarr mais bref man sama mam la alors nous continuons le silence. Mais rectifions rectifier le tir n'est pas encore trop tard ndax tey si nous suñu une décision nous nañ faire mais décision bii ñu jël nous a faire des nous arbitre Nous extérieur di arbitrer extérieur compétir sport xajoon na fi promoteurs yi aussi ñoo ngi leen di ñaan képp ka nga xamante ni nekkoo ci ay disposition dëgg làmb bul jël ay billets di ko jox xale yi nañ comprendre aussi ne mbër yi bëri dañoo am njaboot dañuy xëy suba teel di joxe dépense yor ci seen yaay alors enfin pour terminer benn cas ba nga xamante ni dama ci wax directement su fekkee ne ñoom mënuñu ko ñu wax ñu ko ñu xool ñu koy def ba créer leen ko wur fu ñu fa teg mu di ko doxal muy fondation làmb jot na pour mu am fondation parce que tey nga gis mbër bu feebar ñu jël ko site yëpp ñëw wane feebaram di ko ñaanal ndimbal pour ñu faj ko ba mu xëy génn àdduna yaakaar naa ni muy ministre des sports dégg nañ lim ci si def waaye la CNG kenn war ko si woon jiitu pour éviter problème yooyu nag nañ fexe ba mettre en place une fête euh, une fondation ba nga xamante ni mën nañoo dem fu nekk ci biir àdduna di fa wuti ay fonds pour ëllëg si biir genre cas de figure yooyu su amatee ñu mën a régler le problème sans pour autant que nit ñi di def ay téléthon di ñaanal nit ñi wala dem ñii di yónnee ay Orange Money loolu dafa jekkul ci image lamb ndax su fekkee ne assurance bi nga xamante ni dañ koy dagg si seen licence en même temps combat bu ñu am dañuy dagg assurance xaalis boobu du leen laaj fu mu fu mu fu mu jëm ndax bi moment où nee na ñoom ay bénévole nañ kenn fayu leen moom làmb bi ñu d'accordee waa CNG ne ay bénévole nañ nañ d'accord kon aussi ñu ne xaalis bi jël nañ ko yóbbu nañ ko ministre des sports ñoom nañuy rendre compte parce que ñun fay ñu leen te loolu le chef de l'État moom ci war a jël ay mesures su fekkee ne ñoom ni ko waxee noonu la CNG dañ leen fee teg pour ñu liggéey kon suñ fi toogee di liggéey dañ leen war fay ndax nekkul la nga xamante nit ñi dañ fay ñëw di su boobaa suñ leen nit ñi ni dañ mën ñëw taxaw ne leen hé xaalis bi ngeen ñu dagg fan la jëm su boobaa frais leen jox nit ñi maa ngi nuyu ñëpp encore une fois di jaare waa Pikine Jules Baldé Junior di jaare waa Tëngéej Papa Yade numéro 2 di jaale ak lu làmb yëpp Pape Dia bi nga xamante ni mooy magu Bombardier nekkoon bu seqoon jàmm ak ñëpp di ñaan yàlla yàlla xaare leen àjjana di wax ni maa ngi jéggalu ci retard bi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh soppe Serigne Babacar la borom VIP bi boolu moo bëgg Serigne Saliou bëgg naa ko bëgg ay mbokkam